A'udzu billahi minas syaitanir rajim. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakki julidi, bakki Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Del ci wat nañu di and ak seen television SSTV. Di len baxé nafilé yi nga xamné mom lañu amal ci wéru koor gi. Guddi juroom ñaaré ga ku ci julli juroom ben rakka. bu ci ne ñu jàng ci faatixa benn yoon ak alkaafiroon ak lixlaas lu ci ne juróom ñaari yoon laay ju ci ne des na ko ci bindal aw yiw dana mel ni it ku saraxe junniy dinaar te lu mu ñaan yàlla mu may ko ko te des na ko ci bindal tuyaaba yu toll ni limut bi àdduna bi yëpp xaraf wu ci ne it des na ko ca tabaxal njënd lu rëy ci àjjana asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax a baax a baax waaye di ñaan rek képp ku gis vidéo bi nga def faatixa ak fukki lixlaas ak benn ak salaatu ala nabi boo man nga ñaanal wayjur bii nga xamante ne si moom moo fi bàyyeeku nga xam ni dafa amoon solo trop nekkoon ku baax ku jullite muy El Hadji Mor Seck ñu gën ko xam ci Baye Njóoba yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljanna